de Tijaniya hein, s'est réalisée. Alhamdulillah. وأصيلا ولله الحمد لا أكبر بسم الله فذلك هو الأدب ويندب التكبير حين خروج للصلاة إلى أن يأتي الإمام. xam ngeen ne jullit mooy sa mbokkam jullit kon nag ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bi nga xam ne bis bu tedd la kon nag ñu ngi leen di ndokkeel ci bés bii nga xam ne bés bu tedd la weer wu tedd moo ci jógee weer wu tedd yi tamit ci lañ jógee bonus yu bëri yi yàlla maye ci weer wi la ko maye mu ne bonus yu bëri yàlla maye ci weer wi la ko maye nag ndax weeru koor rek moom moo am benn guddi goo xam ne soo ko mel na ni dundal nga junney junney weer ndax weeru koor rek moo xam benn guddi goo xam ne soo ko dundalee mel na ni jaamu nga yàlla junney weer loolu amut ci beneen weer. loolu day xam ngeen ne amut ci beneen weer. Mawlana Cheikh Ibrahima mu ne loolu niñ koy niñ koy fugloo. Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mu ne loolu niñ koy fugloo. xadis yu bëri wax na ay ay ay dat xadis yu bëri wax nañ ay dat waaye yonent bi sallallahu benn bis nee na déglu leen ma wax leen ba laylatul benn bés déglu leen ma xamal leen lan mooy laylatul qadr am ñu doon kër kër yi ci mbooloo mi di wax am ñu doon kër kër ci mbooloo mi di wax biñ leen noppiloo ba pare ñu ne ko yonent bi waxal bañ leen noppiloo ba pare ñu ne ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxal mu ne fàtte naa li ma doon bëgga a wax sax mu ne man de fàtte naa sax ma doon a waaye ibnu abbas radiallahu anhu nee na guddik ñaar fuk ak ki ñaar ñaar fuk ak juróom-ñaar guddik ñaar fuk ak juróom-ñaar ci wéru koor mom la moo gën a wér ne moom mooy weeru laylatul qadar mo gëna wërne mom ne moom daal mooy laylatul qadar yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna intamisuha mune iltamisuha sallallahu alayhi wasallam neena nee na leen laylatul qadar fi ashra awa awaaxir min ramadaan ci fukk yi nga xam ne moom mujj ci weeru koor fii taasiatun tabqa ci juróom-ñeent yi des ca koor ga fii saabiatun tabqa wala juróom-ñaar ya des ca koor ga fii xaamisatun tabqa wala juróomi fan ya des ca koor ga ابن عباس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے إيه؟ سورۃ ان انزلنا فی لیلۃ القدر سورۃ ان انزلنا فی لیلۃ القدر لکو دلے چ بوب سور سار با من لکو دلے چ بوب سار با بچ السلام هي بچ السلام هي جا من موي ñaar fukki xaraf ak juroom ñaar من موي ñaar fukki xaraf ak juroom ñaar من لول من كون مو تولوك ليلۃ من كون دال لول موم موم لا نتلے نے مو تولوك ليلۃ القدر واي مولانا شيخ ابراهيم نيم نيكو تنگلي هون واي مولانا شيخ ابراهيم رضی اللہ عنہ نيم نيكو تنگلي هون dafay wax ne bët bu sëree jàppal ne tey la tey tey tey la laylatul qadr moom dafay wax ne su koor gi tàmbalee bés bu nekk rek jàppal ne tey la laylatul qadr nga rafetal ko fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bëriwut fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent xam ngeen ne bëriwut soo ko fugloo ci yëpp il faut nga taseeg moom soo ko fugloo ci yëpp il faut nga teseeg laylatul xadar kon dafa mel ni jaamu nga yàlla juróom-ñetti fukki at ak ñeent ak ay weer mu ne kon dafa mel ni jaamu nga yàlla lu tolloog juróom-ñetti fukki at ak ñeent bu tegal ay weer loolu laylatul xadar rek moo ko am loolu day xam ngeen ne guddig laylatul xadar rek moo ko xam yàlla yokk ci ne ci la wàccee alquran yàlla nag yokk ci ne ci lañ wàccee alquran ba tey mu ne malaaka yi ci la ñuy wàcc mu ne bés boobu malaaka yi wàcc bàyyi mu ne bis boobu li muy màgg màgg bisab juddu yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën a. bàyyi ne bés boobu sax de li mooy màgg màgg màgg na de waaye li mooy màgg màgg nag juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek a ko gën a màgg. ndax su yonent bi ñëwutoon duñ xam malaaka yi duñ xam laylatul qadr. ndax yonent bi sa alayhi wa sallam su ñëwutoon duñ xam malaaka yi duñ xam itam laylatul qadr. weer wi itam ci fukki fan ak juróom-ñaar ci la lislaam njëkk am victoire bi nga xam ne. bàyyi nee na su fekkoon ne lislaam dana am kayitu juddu loolu mooy kayitu juddu weer wi tamit muy weeru koor ci fukki fan yi ak juróom-ñaar mooy bésa badar bi nga xam ne islaam xam na witwaar boo xam ne bu dogadoon ak loolu duñ ko xam mukk ci àddina alhamdulilah bi nga xamee ne yàlla dimbale nañu ko alhamdulilah ba nga xamee ne yàlla dimbale nañu ci Sénégal yëpp orandoor ko. Sénégal yëpp orandoor ko. li ëpp ci Sénégal dogandoor ko. li ëpp ci Sénégal yi tamit dogandoor ko. loolu li muy teg tey dafay dafay wane ne peuple Sénégal benn lañ. loolu li mu tegtale dafay bëgg a wane ne peuple senegal moom benn lañ. yàlla su bëggee yombal mbir yi dafay yombal euh, euh, point yi ñu koy defee. yàlla su bëggee yombal mbir yi dafay yombal nag point yi ñu koy defee. ñu ngi am yaakaar bu baax a baax. kon nag ñu ngi am yaakaar bu baax a baax. di indi ndokkeel ak nuyoo bu jógee ci xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima. di indi ndokkeel nag ak boo xam ne dafa jógee ci xalifa sahibul fayda Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu. ak kam Cheikh Mouhamadul Mahi. ak ku mel Cheikh Mouhamadul Mahi. ak imaamul fayda Seydi Cheikh Tidiane Ali Cissé. ak imaamul fayda bi mi nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Ali Cissé. suñ ñëw tey ñoom ñëpp laa fi utu. ñoom tey ñoom ñëpp la fi utu. ndax ñoom itam ñu ngi ñu utu ci yeneen barab. ñoom itamit ñu ngi ñu utu ci yeneen barab. ñu ngi ñaanal. ki nga xam ne moo daan taxawee taxawaay bi ñu ngi ñaanal nag sëriñ bi nga xam ne moo daan taxawee taxawaay bi nga xam ne man lu may ñaanal sama bopp damay ñaanal Baba Lamine yàlla na ko yàlla. may wér te yàggal ko. mu ne moom sëriñ bi nee na buy ñaanal boppam dafay ñaanal Cheikh Baba Lamine yan na ko fi yàlla yàggal te wéral ko. ndax ñi ci naaj wi ñi ci kër gi la ñi ci kër gi ñi ci naaj wi ñoo leen fi bàyyi. ndax ñi ci kër gi day xam ngeen ne ñi fi naaj wi ñoo leen fi bàyyi. daaw jéeg ma mu fekk ca Danemark moom mu oo ma ne ma ñëwoon dëggal li ngay def ñëw ñëwut ndax damay tukki. daaw jéeg ci tabaski bi mu ngi ko fekk ca Danemark waaye def ne ko daggal li ngay def te nga ñëw ndax man damay tukki. ren jiitam bi muy commencé ma mu fekk Nigeria waaye mu ñëw ne ma naa ñëw utu ko ji tamit ba koor gi di tàmbali sëriñ Nigeria way Cheikh Baba daf ko ho ne ko ñëwal nga hootuma ci julli gi. ñun amuñ maqama utu utu melni taxawayam mune mom day sëriñ bi xamul maqama bu toll ni hootu Cheikh Baba Lamine ci place bi waye nak lo meunta def lepp itam du def du tere nga def lenn. waye lo meunta def lepp it du tax nga baye lepp de fo nga def ca lenn. ñu ngi ñaanal yalla borom place bi. ñu ngi ñaanal yalla itamit borom place bi muy Cheikh Mariama. muy Cheikh Mariam bintu Cheikh Ibrahim. moom itam mu ngi ci xaramayni sharifayni moom itamit xam ngeen ne mu ngi ci xaramani sharifayni su fekkoon ne def lu baax su fekkoon dana def lu baax dana doy kon ñu ne moom doy na dana doy kon ñu ne moom war naa doyal nag waaye kër kër gi yëpp li ko waral waaye kër kër gi yëpp li ko waral dafay joxe misaal ba nga xam ne moom la bàyyam doon joxe dafa joxe misaal boo xam ne moom la bàyyam daan joxe ne wa ubrizulil jiilil jadidi misaalal ne man damay feeñalal génération bu bees bi misaal boo xam ne nan nan la ñuy toppee yonent bi sallallahu alayhi kër yi di ànd ak baayam ki daan kër kër yi di ànd ak baayam ba tey ñu teg ko ci sariyo ba tey bi ak baaba moo xalifa bi ak Cheikh Baaba Lamine waxtu ne ñu di ko gis ci facebook bi dafay wane ne liggéey yàlla am amul noppalu dafay wane ne liggéeyal yàlla daal amul coono amul màgget amul noppalu hin nag yàlla taas seen barke yàlla nañu yàlla taas nag ci seen barke ñu ngi gërëm mbooloo mi ñu ngi gërëm mbooloo mi di ci jiital jamiyatu ansaaru diin da ci jiital nag jamiyatu ansaaru diin seen seen taxawaay taxawaay rafet na. mi àggale nañ pay bi ca oote ba nga xam woon na ko depuis juróom fukki at. àggale nañ pay ba nga xam ne Baye oote woon na ko depuis juróom fukki at. ba mu doon loo xam ne lu feeñ la loo xam ne luñ gis la. ba mu doon loo xam ne lu feeñ la luñ teg suñ bët la luñ gis la. ñoom ñooñu di ko taxaw yàlla nee na yàlla dimbale. ñoom ñooñu da ko taxawee nag sëriñ bi ne mu ngi leen di ñaanal yan yàlla dimbale leen. ñu ngi nuyu suñ mbokk yi di ci jiital suñ mbokk ministre mu ne mu ngi nuyu suñ mbokk yi waaye ci di ci jiital suñ mbokk ministère bii nga xam ne mooy Serigne Mbaye Thiam. mi nga xam ne. mi mi nga xam ne. duut ne ministre bi rek moo tax mu teew de. duut ne nekk ministère de l'éducation rek moo tax mu teew de. waaye daf doon teew na baayam daan teewee. waaye daf doon teew nag na baayam daan teewee ci ak taalibe. wala mu yokk loola. wala sax mu yokk nag baayam daan teewee ci ak taalibe. kon nag ñu ngi koy ñaanal. kon nag mu ne mu ngi ñaanal Serigne Mbaye Thiam. da ko ñaanal taxaw lépp lum semb. da ko ñaanal taxawaay lépp lum semb. département bi mu amee ci ci ci ministère. département bi mu xamee ci ministère am. moo gën a jafe. moo gën a jafe. waaye yàlla may na ko ci ndam. waaye yàlla may na ko ci ndam. ku gis njàng mi ren. ku gis njàng mi ren. ku gis examen yi. ku gis examen yi. ku gis ni euh, niñ dugalee daara yi. ak ak nit yi diine yi ci biir. ku gis niñ dugalee daara yi ak nit yi yi ci biir. loolu ba Sénégal amee indépendance ba léegi musta am. loolu ba Sénégal amee indépendance ba léegi man musta am. gouvernement bi jël ay nit. gouvernement bi jël ay nit. ba ci kaw gi. dem ba ci kaw gi. ba ci Taïba Niassène ak Touba ak. Tiwaawan ak dëkk yëpp. mu def fa ay daara yoo xam ne. mu def fa ay daara yoo xam ne. gune yi fay jàngee gouvernement bi daf leen di jël charge ci boppam. gune yi fay jàngee gouvernement bi daf leen di jël tax na ñu yëg ne doomi Sénégal lañ. tax na ñu yëg ne doomi Sénégal lañ. bu njëkk dañoo foogoon ne ku duggul école rek yow bokkoo. bu njëkk dañoo foogoon ne ku duggul école tubaab rek yow bokkoo. bañ amee indépendance ba ne bañ amee indépendance ba léegi nag. atam diplôme arabe yi di dem ci université bi. xatam ren mii lañ gis ñaam diplôme yi di dem ci université bi de jàngi. ñu gis ñi daa ñi nekkoon ci daara yi nga xam ne yalwaan lañ daan dundee. ñu gis ñi nekkoon ci daara yi nga xam ne yalwaan lañ daan dundee. ñu di leen récupéré di leen teg ci ba nga xam ne yëg nañ ne ñoom itam doomi Sénégal. ñu di leen récupéré di leen teg ci dimbalante yoo xam ne danañ yëg ne ñoom doomi Sénégal lañ. dinañ ci dimbali sëriñ ndax moom moo ñu moo moo moo nekk loolu. sëriñ loolu dana ci gërëm sëriñ Mbaye Thiam ko ci yàlla la ndax moom moo dox suñu digganteeg loolu. danañ danañ gërëm itam chef d'état président de la République. mu ne waaye danañ gërëm itamit borom réew mi muy monsieur Macky Macky Sall. nga xam ne ci jamonoom. mu ne boo xam ne ci jamonoom. kuréel yëpp ni daara yi yëgee ne bokk ay doomi Sénégal lañ. kuréel yëpp ni daara yi yëgee ñoom ay doomi Sénégal lañ. kër diine yi yëg nañ ne ay citoyen lañ. kër kër diine yi tamit yëg nañ ci ndimbalal Macky Sall ne ñoom ay citoyen lañ. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne buur su awee ca yoon wa. yonent sallallahu alayhi wa nee na buur su awee ca yoon wa. mu ne buur mooy xolab moom mooy xolab réew. mu ne buur mooy xolab réew. te xol mooy lumb jëmm ji li nga xam ne nekk na ci jëmm su baaxee jëmm ji yëpp baax. te xol xam ngeen ne moo nekk ci jëmm ji présenté na su baaxee jëmm ji yëpp baax su yàqoo jëmm ji yëpp yàqoo. waaye. buur buur itam moom mooy xoli réew. waaye buur itamit xam ngeen ne mooy xoli réew. Baye daan nañu ci jox misaal. Baye radiyallahu anhu daan na ci joxe misaal. da wax ne anu sirwaan. de wax na anu sirwaan. buuri Faris. buuri Faris. dafa maandu woon a maandu ba nga xam ne. dafa maandu woon a maandu ba nga xam ne. fekkewut bi ñuy julli bi bi yonent bi indi message bi sax. fekkewut bi yonent bi da indi message bi sax. waaye maandu googu moo tax ci jamonoom ci la yonent bi juddoo. waaye maandu googu moo tax ci jamonoom ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo. ñu itam ñu ngi ñaan ci jamono ji. mu yalla, yalla, yalla yàlla bëbb ay xewal indi ko Sénégal. mu ne ñu ni tamit ñu ngi ñaan ci jamono ji yal yalla bëbb ay xewal te indi ko Sénégal nag. ay yaakaar yu bëree ngi fi. ay yaakaar yu bëree ngi fi nag. ñu ngi dénk peuple bi. ñu ngi population bi. ñu ne ñu su la ku yàlla may kenn mënu laa xañ. ku yàlla may kenn mënatu laa xañ. ku yàlla xañ kenn mënula may. ku yàlla xañe tamit kenn mënu laa may. ñun nañ éwénal suñu diggante yàlla. ñun daal nañ éwénal suñu diggante ak yàlla. éwénal suñu diggante ak warugar ci suñu gouvernement. éwénal suñu diggante ak warugar yi dox suñu diggante gouvernement bi. su boobaa yëpp dana baax. su boobaa yépp dana baax. gis nañ ci ay tegtal. gis nañ ci nag ay tegtal. ay yaakaar yu bëree ngi yéem a ñëw ñëw Sénégal. ay yaakaar yu bëri ñu ngi ñëw Sénégal. yàgg naa wax ci barab yu yàgg. sëriñ bi mu ne yàgg naa wax ci barab yu yàgg. ne Sénégal. ne Sénégal. li yàlla namm ci moom. li yàlla namm ci moom. mooy lam namm ca ma ca madinatu yonent bi. mooy lam namm ca madinatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. góor yàlla yi ne fii liñ liggéey yàlla beneen réew amu ko. ndax góor yàlla yi nekk fii ci Sénégal luñ liggéeyal yàlla xam ngeen ne benn réew xamu ko. nag lépp lu yàlla may yonent bi dina ko may xeetu xeetu yonent bi kon nag lépp lu yàlla may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ am yaakaar ne dana ko may xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jamono ngi ñëw doomi Sénégal du nekk jullit mooy sa mbokkim mu ne nit ku nekk xam ngeen ne jullit mooy sa mbokkam jullit. kon nag ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bi nga xam ne bis bu tedd la. kon nag ñu ngi leen di ndokkeel ci bés bii nga xam ne bés bu tedd la. weer wu tedd moo ci jógee. weer wu tedd yi tamit ci lañ jógee. bonus yu bëri yi yàlla maye ci weer wi la ko maye. mu ne bonus yu bëri yi yàlla la ko maye nag. ndax weeru koor genn guddi goo xam ne soo ko dundalee mel na ni dundal junne weer ndax weeru koor rek moo xam benn guddi goo xam ne soo ko dundalee mel na ni jaamu nga yàlla junney weer loolu amut ci beneen weer loolu day xam ngeen ne amut ci beneen weer Mawlana Cheikh Ibrahima mu ne loolu koy niñ koy fugloo Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mu ne loolu niñ koy fugloo xadis yu bëri wax na ay ay dat xadis yu bëri wax nañ ay dat waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis nee na déglu leen ma wax leen ba laylatul qadr waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn ma xamal leen lan mooy laylatul qadr am ñu doon kër am ñu doon kër kër yi ci mbooloo mi di wax biñ leen noppiloo ba pare ñu ne ko yonantu bi waxal. bañ leen noppiloo ba pare ñu ne ko yonantu sallallahu alayhi wa sallam waxal. mu ne fàtte naa li ma doon bëgg a wax sax. mu ne man de fàtte naa sax lu ma doon bëgg a wax. waaye Ibnu Abbas. waaye Ibnu Abbas radiyallahu anhu. nee na. guddik ñaar fukk ak kii ñaar ñaar fukk ak ñaar guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru koor. moom la moo gën a wér ne moom mooy weeru laylatul qadar. moo gën a wér ne moom daal mooy laylatul qadar. mu ne yonent bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xëyntu leen laylatul qadar. fii. ashra awa awaaxir min ramadan ci fukk yi nga xam ne moom mujj ci weeru koor fii taasiatun tabqa ci juróom-ñeent yi des ca koor ga fii saabiatun tabqa wala juróom-ñaar ya des ca koor ga fii xaamisatun tabqa wala juróomi fan ya des ca koor ga Ibn Abbas ne. Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne. sooratu inna anzalnaahu fi laylatil qadr. sooratu inna anzalnaahu fi laylatil qadr. li ko dalee boppi saar ba. mu li ko dalee ci boppu saar ba. ba ci salaamun hiya. ba ca salaamun hiya ja. mu ne mooy ñaar fukki xaraf ak juróom-ñaar. mu ne mooy ñaar fukki xaraf ak juróom-ñaar. mu ne loolu moom kon moom moo tolloog laylatul. mu ne kon daal loolu moom moom la nattale ne moo tolloog laylatul qadr. waaye Mawlana Cheikh Ibrahima moom ni mu anhu ni mu ñu dafay wax ne bët bu set rek jàppal ne tey la tey tey moom dafay wax ne su koor gi tàmbalee bés bu nekk rek jàppal ne tey la laylatul qadar nga rafetal ko fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bëriwut fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent xam ngeen ne bëriwut soo ko fugloo ci yëpp il faut nga taseeg moom soo ko fugloo ci yëpp il faut nga teseeg laylatul xadar kon dafa mel ni jaamu nga yàlla juróom-ñetti fukki at ak ñeent ak ay weer mu ne kon dafa mel ni jaamu nga yàlla lu tolloog juróom-ñetti fukki at ak ñeent bu tegal ay weer loolu laylatul xadar rek moo ko am loolu day xam ngeen ne guddig laylatul xadar rek moo ko xam yàlla yokk ci ne ci la wàccee alquran yàlla nag yokk ci ne ci lañ wàccee alquran ba tey mu ne malaaka yi ci la ñuy wàcc mu ne bés boobu malaaka yi wàcc bàyyi mu ne bis boobu li muy màgg màgg bisab juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a. bàyyi ne bés boobu sax day li mooy màgg màgg màgg na de waaye li mooy màgg màgg nag juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek a ko gën a màgg. ndax su yonent bi ñëwutoon duñ xam malaaka yi duñ xam laylatul qadr. ndax yonent bi sa alayhi wa sallam su ñëwutoon duñ xam malaaka yi duñ xam itam laylatul qadr. weer wi itam ci fukki fan ak juróom-ñaar ci la lislaam njëkk a am victoire bi nga xam ne. bàyyi nee na su fekkoon ne lislaam dana am kayitu judd loolu mooy kayitu judd weer wi tamit muy weeru koor ci fukki fan yi juróom-ñaar mooy bésa badar bi nga xam ne islaam xam na witwaar boo xam ne bu dogadoon ak loolu duñ ko xam mukk ci àddina alhamdulilah bi nga xamee ne yàlla dimbale nañu ko alhamdulilah ba nga xamee ne yàlla dimbale nañu ci Sénégal yëpp orandoor ko. Sénégal yëpp orandoor ko. li ëpp ci Sénégal dogandoor ko. li ëpp ci Sénégal yi tamit dogandoor ko. loolu li muy teg tey dafay dafay wéné ne peuple Sénégal ben lañ. lolu limu tektalé tegtale dafay bëgg wané né peuple Sénégal mom ben lañ. yalla su bëggé yombal mbir yi dafay yombal euh, euh, point yi ñu koy defee. yàlla su bëggé yombal mbir yi dafay yombal nak point yi ñu koy defee. ñu ngi am yaakar bu baaxa baax. kon nak ñi ngi am yaakar bu baaxa baax. di indi ndokkel ak nuyo bu joggé ci khalifa Cheikh Ahmed Tidiane ibrahim di indi ndokkel nak ak nuyo bo xamné ne dafa joggé ci khalifa Sahibul Fayda Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu. ak kam Cheikh al Mahi. ak ku mel Cheikh Mouhamadul Mahi. ak imaamul fayda Seydi Cheikh Tidiane Ali Cissé. ak imaamul fayda bi mi nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Ali Cissé. suñ ñëw tey ñoom ñëpp laa fi utu. ñoom tey ñoom ñëpp la fi utu. ndax ñoom itam ñu ñu utu ci yeneen barab. ñoom itamit ñu ngi ñu utu ci yeneen barab. ñu ngi ñaanal. ki nga xam ne moo daan taxawee taxawaay bi ñu ngi ñaanal nag sëriñ bi nga xam ne moo daan taxawee taxawaay bi nga xam ne man lu may ñaanal sama bopp damay ñaanal Baba Lamine yàlla na ko yàlla. may wér te yàggal ko mu ne moom sëriñ bi nee na buy ñaanal boppam dafay ñaanal Cheikh Baba Lamine yan na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ndax ñi ci naaj wi ñi ci kër gi la ñi ci kër gi ñi ci naaj wi ñoo leen fi bàyyi ndax ñi ci kër gi day xam ngeen ne ñi fi naaj yi ñoo leen fi bàyyi daaw jéeg ma mu fekk ca Danemark moom mu oo ma ne ma ñëw dëggal li ngay def ñëw te ndax damay tukki daaw jéeg ci tabaski bi mu ngi ko fekk ca Danemark waaye def ne ko daggal li ngay def te nga ñëw ndax man damay tukki ren jiitam bi muy commencé ma mu fekk Nigeria waaye mu ñëw ne ma naa ñëw utu ko ji tamit ba koor gi di tambali serigne bangi na Nigeria way Cheikh Baba daf ko ho ne ko ñëwal nga hootuma ci julli gi. ñun nak amuñ maqama utu utu melni taxawayam ni mu ne day serigne bi xamul maqama bu toll ni hootu Cheikh Baba la min ci place bi waye nak lo mënta def lepp itam du def du tere nga def lenn. waye lo mënta def lepp it du tax nga bàyyi lepp de fo nga def ca lenn. ñu ngi ñaanal yalla borom place bi. ñu ngi ñaanal yalla itamit borom place bi. muy Cheikh Mariama. muy Cheikh Mariam bintu Cheikh Ibrahim. itam mu nga ci xaramayni sharifayni moom itamit xam ngeen ne mu ngi ci xaramani sharifayni su fekkoon ne def lu baax su fekkoon dana def lu baax dana doy kon ñu ne moom doy na dana doy kon ñu ne moom war naa doyal nag waaye kër kër ji yëpp li ko waral waaye kër kër gi yëpp li ko waral dafay joxe misaal ba nga xam ne moom la bàyyam doon joxe dafa joxe misaal boo xam ne moom la bàyyam daan joxe ne wa ubrizulil jiilil jadidi misaalan ne man damay feeñalal génération bu bees bi misaal boo xam ne nan nan la ñuy toppee yonent bi sallallahu alayhi kër yi di ànd ak baayam ki daan ba tey ñu teg ba tey bi ak baaba di ko gis ci facebook bi waxtu ne ñu ko gis ci facebook bi dafay wane ne liggéey yàlla amul coono amul am am amul noppalu dafay wane ne liggéeyal yàlla daal amul coono amul màgget amul noppalu hin nag yàlla taas seen barke yàlla nañu yàlla taas nag ci seen barke ñu ngi gërëm mbooloo mi ñu ngi gërëm mbooloo mi di ci jiital jamiyatu ansaaru diin da ci jiital nag ansaaru diin seen taxawaay taxawaay rafet na. mi àggale nañ pay bi ci oote ba nga xam ne Baye oote woon na ko depuis juróom fukki at. àggale nañ pay bi ci oote ba nga xam ne Baye oote woon na ko depuis juróom fukki at. ba mu doon loo xam ne lu feeñ la loo xam ne luñ gis la. ba mu doon loo xam ne lu feeñ la luñ teg suñ bët la luñ gis la. ñoom ñooñu di ko taxawee yàlla nee na yàlla dimbale. ñoom ñooñu da ko taxawee nag sëriñ bi ne mu ngi leen di ñaanal yan yàlla dimbale leen. ñu ngi nuyu suñ mbokk di ci jiital suñ mbokk ministre mu ne mu ngi nuyu suñ mbokk yi waaye ci di ci jiital suñ mbokk ministère bi nga xam ne mooy Serigne Mbaye Thiam. nga xam ne nga mi nga xam ne. duut ne ministre bi rek moo tax mu teew de. duut ne nekk ministère de l'éducation rek moo tax mu teew de. waaye daf doon teew na baayam daan waaye daf doon teew nag. na baayam daan teewee ci ak taalibe. wala mu yokk loola. wala sax mu yokk nag baayam daan teewee ci ak taalibe. kon nag ñu ngi koy ñaanal. kon nag mu ne mu ngi ñaana Serigne Mbaye Thiam. da ko ñaanal taxaw lépp lum semb. da ko ñaanal taxawaay lépp lum semb. département bi mu amee ci ci ci ministère. département bi mu xamee ci ministère am. moo gën a jafe. moo gën a jafe. waaye yàlla may na ko ci ndam. waaye yàlla may na ko ci ndam. ku gis njàng mi ren. ku gis njàng mi ren. ku gis examen yi. ku gis examen yi. ku gis ni euh, niñ dugalee daara yi ak ak nit diine yi ci biir. ku gis niñ dugalee daara yi ak nit diine yi ci biir. loolu ba Sénégal amee indépendance ba léegi musta am. loolu ba Sénégal amee indépendance ba léegi man musta am. gouvernement bi jël ay nit. gouvernement bi jël ay nit. ba ci kaw gi. dem ba ci kaw gi. ba ci Taïba Niassène ak Touba ak. Tiwaawan ak dëkk yëpp. mu def fa ay daara yoo xam ne. mu def fa ay daara yoo xam ne. gune yi fay jàngee gouvernement bi daf leen di jël charge ci boppam. gune yi fay jàngee ne bi daf leen di jël charge tax na ñu yëg ne doomi Sénégal lañ. tax na ñu yëg ne doomi Sénégal lañ. bu njëkk dañoo foogoon ne ku duggul école rek yow bokkoo. bu njëkk dañoo foogoon ne ku duggul école tubaab rek yow bokkoo. bañ amee indépendance ba ne bañ amee indépendance ba léegi nag. atam ren mii lañ gis ñi diplôme arabe yi di dem ci université bi. xatam ren mii lañ gis ñaam diplôme yi arabe yi di di jàngi. ñi daa ñi ñi nekkoon ci daara yi nga xam ne yalwaan lañ daan dundee. ñu gis ñi nekkoon ci daara yi nga xam ne yalwaan lañ daan dundee. ñu di leen di leen teg ci ba nga xam ne yëg nañ ne ñoom itam doomi Sénégal. ñu di leen récupéré di leen teg ci dimbalante yoo xam ne danañ yëg ne ñoom doomi Sénégal lañ. dinañ ci dimbali sëriñ Mbaye Thiam ndax moo ñu moo moo moo nekk loolu. sëriñ bi nee loolu dana ci gërëm sëriñ Mbaye Thiam te ko ci yàlla ndax moom moo dox suñu digganteeg loolu. danañ danañ gërëm itam chef d'état président de la République. mu ne waaye danañ gërëm itamit borom réew mi muy monsieur Macky Macky Sall. nga xam ne ci jamonoom. mu ne boo xam ne ci jamonoom. kuréel yëpp ni daara yi yëgee ne bokk ay doomi Sénégal lañ. kuréel yëpp ni daara yi yëgee ñoom ay doomi Sénégal lañ. kër diine yi itam yëg nañ ne ay citoyen lañ. kër kër diine yi tamit yëg nañ ci ndimbalal Macky Sall ne ñoom ay citoyen lañ. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne buur su awee ca yoon wa. yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na buur su awee ca yoon wa. mu ne buur mooy xolab moom mooy xolab réew. mu ne buur mooy xolab réew. te xol mooy lëmb jëmm ji li nga xam ne nekk na ci jëmm su baaxee jëmm ji yëpp baax. te xol xam ngeen ne moo nekk ci jëmm ji présenté na su baaxee jëmm ji yëpp baax su yàqoo jëmm ji yëpp yàqoo. waaye. buur buur itam moom mooy xol réew. waaye buur itamit xam ngeen ne mooy xol réew. Baye daan nañ ci jox misaal. Baye radiyallahu anhu daan na ci joxe misaal. da wax ne anu shirwaan. de wax na ne Anusirwan buuri Faris. buuri Faris. dafa maandu woon a ba nga xam ne. dafa maandu woon a maandu ba nga xam ne. fekkeewut bi ñuy julli bi bi yonent bi indi message bi sax. fekkeewut bi yonent bi da indi message bi sax. waaye maandu googu moo tax ci jamonoom ci la yonent bi juddu. waaye maandu googu moo tax ci jamonoom ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu. ñun itam ñu ngi ñaan ci jamono ji. mu fi yàlla yàlla yàlla bëbb ay xewal indi ko Sénégal mu ne ñu ni tamit ñu ngi ñaan ci jamono ji yal na yàlla bëbb ay xewal te indi ko Sénégal nag ay yaakaar yu bëree ngi fi ay yaakaar yu bëree ngi fi nak? ñu ngi dénk peuple bi ñu ngi population bi ñu xam ne ñu xam ne su la ku yàlla may kenn mënula laa xañ ku yàlla may kenn mënatu laa xañ ku yàlla xañ kenn mënu laa may ku yàlla xañe tamit kenn mënu laa may ñun nañ éwénal suñu diggante yàlla ñun daal nañ éwénal suñu diggante ak yàlla éwénal suñu diggante ak warugar ci suñ gouvernement eh, éwénal suñu diggante ak warugar yi dox suñu diggante gouvernement bi su boobaa yëpp dana baax su boobaa yëpp dana baax gis nañ ci ay tegtal gis nañ ci nag ay tegtal ay yaakaar yu bëri ngi jéem a ñëw ñëw Sénégal. ay yaakaar yu bari ñu ngiy ñëw Sénégal. yàgg naa wax ci barab yu yàgg. sëriñ bi mu ne yàgg naa wax ci barab yu yàgg. ne Sénégal. ne Sénégal. li yàlla namm ci moom. li yàlla namm ci moom. mooy lam namm ca ca madinatu yonent bi. mooy lam namm ca madinatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. góor yàlla yi ne fii liñ liggéey yàlla beneen réew amu ko. ndax góor yàlla yi nekk fii ci Sénégal luñ liggéeyal yàlla xam ngeen ne benn réew xamu ko. kon nag lépp lu yàlla may yonent bi dina ko may xeetu xeetu yonent bi. kon nag lépp lu yàlla may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ am yaakaar ne dina ko may xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. la de Tijaniya s'est réalisée.